asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di leen balu àq ci weeru màgg wi ñu nekk di leen ziyaar ci turu sëriñ Afiya Buso mi jiite daayira muqaddamatul xidma suñ jataayu tey bii nag ku gis jataay bi da xam ne am na taarix bu am solo bu ci am muy daje gi ñu daje ak njabootuk Mandiaye Falamine fii ci jumaay Touba ku xam njaboot googu nag xam jumaa ji xëy na daje bii du doon lu bett ci yow ndax ak njabootam tàmbale ko ci sëriñ am Amdi jóob sëriñ moo du abib yàll na yàlla euh, taxawu ko euh, bi ñu xamee ne jumaa ji mooy bëgguk sëriñ bi ñoom ci lañu ñu tàmbali woon ci at yu baree baree bari su ma juumul léegi tey mu jege fanweeri at mbaa ko ëpp ci lépp loo xam ne jumaa ji soxla na ko ci ay jumtukaay ñuy fexe jumtukaay yooyu di ñëw ci jumaa ji ci ay baleek ci ay tameek yàgg na booba yii yëpp xewut loolu sëñ Abdou Lahad Bousso maam Assa mii toog seede la ci ndax way juram bàyyi sëriñ Bousso mi nga xam ne moo jiite woon mbooloo moomu muy daayiratu asxaabul janna booba mu xaddamatul xidma sosoogut lañ àndoon di yëngutoondoo ak moom ba ni mu xaddamatul xidma sosoo ñoom moom itam ñoom itam ñu wëlbatiku takkaat seenu laxasaay sóobuwaat ci liggéey bi mu mel ne weneen sas wu bees wu fekk si sas wu njëkk wala ñu nekk ci nekk ci ba daayira Muxaddamatul Xidma taxaw yemuñu ca ñu jël seenu njaboot dugal ci biir ñoom sëriñ Moustapha ñi ngi nii sëriñ Moustapha Diop ñoom ñaar ñëpp ñi ngi nii ci jataay bi waaye sëñ Assane itam nga xam ne wax na ne itam sëñ sëñ euh, Amdi moo ko dugal ci daayira bi moo ko ci dugal kon loolu wane na ne ñoom liggéey bi sëñ tubaab bi daawuñu ko caaxaane daawuñu ko kafe rawatina bu jumaa ji ba tax na tey sëñ Amdi gis ngeen liggéey bu euh, sëñ Assane liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom lay def ci daayira Muxaddamatul Xidma ci diaspora bi Afrique fépp muy coordonné ngir mbokki taalibe yi di dugal seen loxo ci daayira bi loolu nag kon mooy moo sabab suñu jotaayu tey bii njaboot googu nag bi ñu demee ba màgg muy gën a yaatu ci lañu xam ne nag euh, seeni waajur yi lañ ci tàbbaloon léegi tële nañ ay mag lañ ñoom ñoo war a jël relève bi nag ñoo war a takkuwaat nag ngir taxaw seen taxawaayu waajur woowee seen waajur yooyee nekkoon ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma kon Euh, ci mbooloo moomu nag muy njaboot googu ñi fi teew tey te ci njiitul Serigne Modou Ablaye jóob moom mi ngi fi euh, soxna yi itam bàyyiwuñ itam seen i seen seeni seen jigéen ñoom itam ñoom ñëpp ñu ngi fi ndax liggéeyub jumaa ji nag damay fàttali ne fépp fu fi góor ma sa taxaw rek jigéen mu ngi ci wetam ca euh, ca gasum raay ba ci gasum xeer ya ca ndokk ba ni jumaa ji sottee fuñ fi gis ay góor rek gis nañ ay soxna ci seen wet kon njabootuk sëñ Mandiaye Fala mi nga xam ne xëy na teewul ci jataay bi waaye soxna Asu Diop moo ko fi teewal ñoom ñëpp ñu ngi fi kon daal mel na ne njaboot gi yëpp teew nañ ñu bëgg nag Euh, dugal seen loxo ci liggéey liggéeyu daari Muxaddamatul Xidma dajale seen addiya seen i fukk ki ñaar fukk ki seen i téeméer dajale ko ngir dugal ko ci liggéey bii nga xam ne liggéey bi Serigne Touba te Serigne bi diggee woon na ne képp ku ci feeñ danga feeñ ba faw ku ci nëbb danga nga nëbb ba faw kon loolu mooy jota suñu jotaayu tey bi kon duñ def lu dul jël kàddu gi rek jëbbal ko Serigne Modou Ablaye sëñ modo Ablaye mu wax ci turu njaboot gi bu ñu noppee doog a jébbal sëñ Abdoulahad Bousso Euh, Thierno mu wax ci turu Serigne Afia Bousso mi nga xam ne jiite commission sociale ak relation extérieure moom itam mu ngi nii teew yaakaar naa ñu bari ci yéen ràññee nañ ko sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xamante ni moo jiite commission culturelle waaye bokk ak sëñ Abdou Lahad Bousso Mame Assa ci commission euh, sociale bi relation extérieure di ci liggéey ndoog moom sëñ Abdou Lahad ñu jël kàddu gi rek jébbal ko sëñ Modou euh, sëñ Modou Ablaye mu wax ci turu njaboot gi bismillahi rahmaani asalaamaaleykum yéen waa dayra Muxaddamatul Xidma Serigne Modou Diop Touba mooy nuyoo tey siyaar bu baax a baax tey wax ne tey tey wax nag Serigne Modou Diop ak Serigne Modou Abdoulahi danoo bokk danoo nuróoy tur te bokkunu kii Serigne Modou Diop la waaye kii jëwriñu liggéey bi moo tudd Serigne Modou Abdoulahi Diop waaye man sëriñ Modou Diop laa tudd maay ndawal Serigne Modou Diop mi ko yoral kàddoom ci njaboot gi di yëkkati kàddu yoo xam ne nag ci ndigalu Serigne Modou Abdoulahi Diop lañ koy yëkkatee. mooy comme nii nga ko waxee si biir jotaay sa ni nga ko ubbee day nekk suñu kàddu rek mën naa ne foofu lañ ko sax dañuy jiital si nuyoo nan jiital si nuyoo bi sëñ Afia jël sunu nuyoo teg ko si loxoom mu jottali ko si mboolem waa daayiratu Muxaddamatul Xidma jël sunu nuyoo jox ko mu joxal na ko mun taxaa te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi yokk kattanam yokk wéram ba lim yéene liggéey sëñ Tubaa suñu defal ko si lu kawe njortam tam ànd ko mboolem njabootu sëñ Tuubaa geeg murid yëpp bu loolu jàllee nuy nuyu Serigne Malick Diop mais xam ne moo jiite njabootu Cheikh Omar gi di ko ñaanal suñu borom yokku ko kattan yokku ko wér ba lim bëgg a liggéeyal sëñ Omar yàlla defal ko te mu ànd ko mbooleem njabootu Cheikh Omar gépp ni nga ko waxee nag ñii fi dajee tey jii muy njabootu Mama Ndiaye Fala mi Mama Ndiaye Fala mi benn dongob Cheikh Omar la woon di ab jarbaatam ndax lii nuy jëf ak lum mu mën di doon Cheikh Omar lañ koy jëfal moo tax dama ciy leeral tuuti ne ma Ndiaye Fall mi li ko indi fii si Touba ba njabootam gi mën a ànd ak waa Kër Sëñ Touba ci liggéey bépp loolu maam Cheikh Omar moo ko defal ndax bi sëñ amee fii kër si fii si Touba nekk ngay bëgg ko fi dëkkal moom moo jaayante woon sa booba dëkk Touba neexul woon ñëw dëkkal fi sëñ Omar bi loolu amee. si njabootu boppam nang si ni nga ko waxee si biir liggéey jumaa ji xam ne Sëñ Tuubaa junj na ko côté bu ne ak jaraloon na ko lu ne Baye Amdi Diop mi suñ baay di doomi ma Njaay Faala mi àndoon ko Baye Modou Habib Diop daan ci liggéey si 1960 jëm 63 bi nu ubbee jumaa ji ba tey jii nu ànd ko waa jumaa ji ba bi fi Baye Amdi jógee bay Modou Habib doon ko def di ko ànd ak njabootam ànd ko njabootam ma Njaay Faala loolu moo waral tànki tey jii ndax suñu tàggite tey loolu moo ko indi ndax yàlla dafa dogal njaboot gi ma Ndiaye Falla mi dafa amoon ñeenti doom yu góor ak juróom-benn yu jigéen ñi bokk ndey ñi bokk baay tey njaboot gii nga fi gis ñu daje fi ñëpp kum si juru sa baay moo fi jur sa yaay bi demee ba xam ne nañu suñ maam xamul woon lu lu liggéey Serigne Touba te léppam da koo joxoon Serigne Touba ndax joxam léppam Serigne Touba moo waral ak dëkkam Touba ndax loolu moo waral Serigne Omar indi ko fi mu dëkkal ko fi waaye bi mu ko fi dëkkalee nag ak njabootam doon yëngu si jumaa ji ku mel ne Baye Amdi ba mu demee ba jëm mag sëñ Assane mi xam ne ne doomam la jël relève bi fas yéene wéyal liggéey ba ba mu demee ba mu xam ne nag njaboot gi xam ne na liggéey sëñ Tuubaa dara lu ci gën a màgg jumaa ji gisuñu ko ci la gi toog waxtaan ak sëñ Assane si ndigalu sëñ Modou Ablaye ñu daal di takkuwaat jaajuwaat ne liggéey bi xam ne ne Baye bi moo ko doon liggéeyal jumaa ji ba yàlla def mu àgg sa loxo sëñ Assane Diop nu na léegi dee ko bàyyi si Assane dee su ko siy dimbali njaboot gépp ànd ko moo xam ñu nekk si biir réew wala ñu nekk bitim réew ni nga ko waxee nu day yàlla sunu dërëm wala sunu ñaar dërëm wala sunu téeméer moo xam mu néew moo xam nu bari bu demee ba koor gi ñëw nu indi ko jibbal ko fi yeggale ko suñu yéene yu waajur ya ak suñu yéene maam ya loolu moo indi jotaay bii kon nag nanu xam nanu na ngeen xam ne njaboot gii si njiital sëriñ Modou Abdoulaye Diop mboolem ku bokk si njaboot ku nekk si jatbaa bi sëñ Assane Diop moom moo la fay coordonné sëñ Alaaji Ibrahima Diop ndaw mii moo nekk fii Sénégal moom doomi Baye Amdi Diop la moom lañ jox liggéey bi mu koy liggéey fi Sénégal loolu moo waral liggéey bi lii kon nag suñ tànki tey yii tànki dabu la suñ ya nekkoon te bëgg ko dundalaat mooy tànki tey jii nu bëgg nag liggéey bii nu fi indi nuy ñaan suñu borom nangu ko te yool bi mu jébbal ko suñu waajur yi ak sun maam yi xam na ne noo xàlloon yoon wi ba tax nu xàmmee ràññale ba mën a def jëf ju mel nii léegi nag ñun ñii ba ni suñ maam mi bëggoon lépp fun fa yemoon nu yeggale leen ko fan fu kawe seen jot loolu la ñuy ngeen ñaanal nu ko ñaanal ko mboolem njaboot gi nekk si biir réew ak si bitim réew ndax nag njabootug ma njaay faala ak njabootug jumaa ji ndax bu neexee njabootug jumaa ji donte jumaa ji murit yëpp ko bokk xam na ne jumaa ji jumaa ji moom ku tudd buso tant tudd jumaa ji te ma njaay mi mii nuy wax sëñ Ibrahima Bousso la ko tudde 1925 la gën a jamono kon kooku yàgg naag ñi sant Bousso am na yàgg na am kóllëre te fii si jumaay jii dey ku ko tudd tudd Bousso kon nag na ngeen bàyyi xel na ne lii sëñ jëwriñ ji wax ñu njaboot gi foofu la ne daa am loo xam ne suñuy maam noo ko doon liggéey jóge fa suñuy waajur di ko liggéey ñun na ay tuut tànk du toqantal nu si yar nu si nu siy yëngu ba xàmmee nu fas yéene fépp foo xam ne suñu waajur nekkoon nañ fa tegoon fa seen tànk nu fas yéene faa wóotu fas yéene def lan doon def ba defee lu kawe lu kawe seen jot te loolu lépp nag ni nga koy defee si sakku ngërëmal sëriñ Omar ndax ñun luñ am sëriñ Omar moo na ko may ndax tey bu dul woon sëriñ Omar suñu waajur suñu maam ja du fa ñëw di dëkk Touba ba ne xam lan mooy liggéey sëriñ tubaa ndax tey jii boo demee si mboolem liggéey yi ñuy liggéey sëriñ tubaa si ges bi bi njabootu maam Ndiaye Fall mi amul kenn ku leen sa man mbooleem luñ koy liggéey si jumaa ji njabootu Mame Ndiaye Fallé mu la amul kenn ku leen si man loolu nag kon lii bu buñ ko defee mën na ne batte buñ delluwaat sa ndaala dong lay doon kon nag ni ngi soññ njaboot gi ñi nekk si biir réew mi ak ñi nekk si bitim réew fu waaye man de ne na nga xam ne ubbi nañ bunt boo xam ne bëgg nañ ñun ñëpp kenn ku ne sa wërsëg lii di màggalu Touba waajal màggal gi koor gi ak mboolem liggéey yi mu xaddimatul ma di liggéeyal Serigne Touba si jumaa ji fas yéene na njaboot gi fas yéene ko ànd kër sàkku si ngërëmal suñ maam ya ngërëmal maam Cheikh Omar ma xam ne ne suñ maam jool lépp lu maam moom moom moo ko may kon nag kàddu yi xam naa ne dana gudd na waaye nag ni koy jégalu ni ki nuy wax loolu dafay ku munta wax waaye nag am na yéenay wax ni mu ko gënoon rafet li ko bëggoon li ko doon wax loolu lépp munu koo wax ndax ki koy wax loolu muy sëñ Modou Abdoulaye Diop ay kàddoom li mu ko wax loo woon ëpp na lii waaye daal ni ngi leen a xamal ne sëñ Modou Abdoulaye nekku fi sëñ Assane mii coordonnateur bi new fi ñun ñii seen i ndaw fas na lépp loo xam ne ne digal nañu ko si liggéey jumaa ji nu fas yéene ko ànd ak sunuy yaay ak sunuy baay ak sunuy rakk ak sunuy soxna ñëpp fas yéene see def lu man ak lu mën ngir jëmmi yàlla ak ngir jëmmi sëriñ di ñaan na ngeen sàkkalu si ngërëmal sëriñ Tuubaa tey ak ëllëg tey mboolem yéen ñi fi nekk di man liggéeyal Muxaddamatul Xidma ni ngi leen di ñaanal si barkeb sëriñ Tuubaa kii njiit li muy sëñ Afe ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gépp ak mboolem waa Muxaddamatul ma bépp suñu borom defal leen ngërëmal sëriñ Tuubaa si liggéey bi ñu liggéey sëriñ Tuubaa te defal leen ak mucc te aar leen te sàmm leen te sàmm leen seenu njaboot si barke Sëñ Tuubaa ni ngi jégalu kàddu yi bu baax a baax wasalaam. jërëjëf sëñ Modou Diop ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne moom la doon yëkkati ci turu sëriñ ab Ablaye Diop euh, di kàddu yoo xam ne ku ko dégg xam ne ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi kàddu yu pësteef la kaddu itam feddali ak laxasaay la ci lu ñu leen toqantaloon ci seeni i waajur ci seeni i maam jërëjëf kon ñu jël kaddu gi rek jëbbal ko waaw sëñ sëñ Abdoulaye Bousso Thierno waaw kon ñu jël kaddu gi rek jëbbal ko sëñ Abdoulaye Bousso Thierno mi nga xam ne mooy wax ci turu daayira muqaddamatul xidma te mu bokk ci commission bi nga xamante ni mooy lëkkale lu mel ne mbooloo yi di commission sociale ak relation extérieure asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Ablaye ci kàddu yu am solo yi nga tëje ñi ngi nuyu mbooloo mi di nuyu njabootuk sëñ Mandiaye Falamine ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ak sëriñ Afee mi nga xam ne moo leen jiite di nuyu sëriñ moodu ci di rafetlu kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko di nuyu tamit ñi nga nekkal ci jotaay bi yëpp ñoom sëñ Assane Kabir ak ñoom sëñ Moustapha ñoom ñëpp waaye di nuyu soxna yi soxna Cuuna ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga àndal ñëpp ak mboolem njaboot gi ak fuñ mën a nekk. xam naa ne ñu ci bëri danañ jot vidéo bi waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, kaddu yi nga xam ne nag dégg nañ ko fi tey dafa am solo lool di kàdd yoo xam ne yu dal xel la ci nangu liggéeyu sëriñ bi ndax su fekkee ne liggéey la boo xam ne sëriñ bi moo ko santaane. taalibeem yim njëkk a mu joxoon leen ci ndigal ci gëstu yi ñu doon def euh, gëstu nañ ne àggoon nañ ci gëstu xam ne sëñ Omar Diop sëriñ bi mas na ko booleeg sëñ Mbàkke Buso ngir mu leeral ko mbiri jumaay Tuubaa ngir buñ ca àggee mu jàpp ci liggéey bi kon dañuy jàpp ne su fekkee ne gis nañ ne jumaa ji bi nga xamee ne jabatuk sëñ Omar ña nga ca woon ca bañ koy liggéey biñ demee ba mu àgg tamit ñu gis ne kenn ci njabootuk sëñ Omar ni ko waxee léegi nga xam ne muy sëñ Mandiaye Falamine sëriñ Omar moo ko joxoon ndigal mu ñëw sanc si Touba ay doomam jàpp ne li sëriñ bi doon ñaan ci wax fir liman banaw binaan rafi wax fir liman amarahum bi jamii sëriñ bi doon ñaanal ñi tabax tabax bi waaye yemalewu ko ci tawax rek maanaam ci képp koo xam ne yaa ngi jàpp ci entretien bi moo xam lu yàq wala lu ñu mar a defar lu nekk dangay dugg ci ñaan ko gis-gis boobu nag jàpp naa ne moom la suñu seen waajur yooyu amoon muy sëriñ Amdi ba ci sëñ Modou Habib mii ak sëñ Modou laay ñoom ñëpp. xam naa ne bi ñuy tàmbali di liggéey ci day ci jumaa ji ci 1960 nga xam ne boobu ubbeeguñ jumaa ji yàgg na noonu tamit nañu la ñuy yëngoo ci armeel yàlla di dox di dox ba daayira Muxaddamatul Xidma sosu ci 94. lu jiitu loolu ñuy indi liggéey bi di ci jëflanteeg suñu bàyyi sëñ Mbusoobe di waajur sëñ Abdou Lahad mii nga xam ne sëñ Abdou Lahad mii mën naa génn ay yoo xam ne sëñ Amdi Jóob ma nga ca am ay bagages yoo xam ne jóge na fu ne ci àddina bi ak yu jóge fii ci Touba te loolu lépp ci taxawaayu njabootu sëñ Mandiaye Falamine la jóge te loolu di lu leer bi ñu sos daayira bi it bàyyi sëñ Bousso ak suñu bàyyi sëñ Abdul Moutalib ak sëriñ Njaaña Bousso ñoo ànd ak ñun dem ba ci sëñ Saaliw sëñ Saaliw joxe ndigal li kon dafay mel ne loola mooy tey su su loolu lépp amee nag ñu gis na liggéey bi ñu def ci diaspora bi yëpp njabootuk sëñ Mandiaye Fall Lamine mooy njabootuk sëñ Omar kenn mënu leen ci sëñ sëñ Assane Kabir mais barki démb la ñëw di ànd ak ñi doon jébbale say liggéeyu Italie boo demee fédération Espagne noonu la demee ba ci Turquie ba ci Angleterre ba ci fu mu mën a nekk ba ci Brésil ak ak ak ak ak Argentine loolu ñun xam nañ ci lu bëree bëree bëree bëri ngir coordination bi nga xam ne sëñ Assane mi ko ci def kenn mënu leen ci kon nag su ngeen su ngeen defee loolu ba tey nag ngeen gis ne nag yëkkati ndono lu jiitu woon loolu it dafa jot muy ndono eh, li nga xam ne sun maam sampon na ko ñun ñi ay sëtam di ay jarbaatam war nañoo ñëw nag yëkkatiwaat loolu ngir nag dooleel sëñ Assane mi leen ci nekkal ak jiwrin yi nga xam ne ñoo nekk diaspora bi nekkal leen ci ak ñoom suñu Moustapha ñii ngeen ne nag dañoo bëgg képp ku bokk ci njaboot gi léegi nga nga ñëw tàbbi ci liggéey boobu loolu jàpp naa ne nanguk liggéey la kon yaakaar ju dolli ko la ju wér a kon yàlla ñu Serigne Touba gën a boole ni mu woon maam yi ni leen Serigne Touba boole woon ci liggéey bi boole ñu tamit ci liggéeyu démb bi ak tay jii yàlla nañ ko ànd ba faw te suñu borom yéwénal xéewal yi yuñ ko mën a defee tam ko wér te jàppanal mbir yëpp mbir la moo xam ne wax dëgg yàlla xalaat bu rafet rafet la boo xam ne yàlla nañu ko yàlla ko sëriñ bi tëyal boppam te gën koo nangu te ñu bañ cee gis suñu bopp suñu borom kattanal ñu bu baax a baax ñi ngi dollee cee seereel ak cant tamit sëriñ Assane nga xam ne ci yéen la bokk ci taxawaayu moom it ak njabootam. muy soxna cuuna mi ak mboolem kum xam ak lum man te loolu su koy def mel na ne kenn ci yéen rek kenn ku nekk moo koy def seere loolu kon ñi ngi sant bu baax a baax di gërëm di am mbégte lool ci jataay bi di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfeex ak taysiir di yamale kàddu yi foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu